saraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fële ministre Matar ba mi jiite sport bi jiite lamb ji jiite ka jiite lamb ji moom la journal ba xëy xamle ko mooy ñaari mbir a ngi nii moom ministre Matar ba nangu caa àddu nangu caa wax ndax Alioune Sarr dana fi jógeem déet waxagu ca leeralagu ca waxagul lu ci jëm ndax saison ren bi année balance lay doonam déet waxagul la ca jëm moom daal la mu def mooy maintenir suspense ba bàyyi nit ñeeg seeni xel muy xalam la ko neex waaye nag li olof di wax naan junj doy na boroom xel loolee ministre ba def na ko junj weesu wut maanaam jafe-jafe yi lamb ji nekkee bu ñu ko réglé du bu ñu ko réglé wut du am bëre du am waaye la jëm ci mbiru Alioune moom mën gu caa addu mën gu caa wax dara ndax Alioune dana fi jógeem déet moom Matar ba ma ca war a wax addoo ca wax ca waxagut la ci jëm ci mbiri saison blanche bi nekk ci xelu ñëpp it àdduna ca nee dafa teel ngir ñu wax lu jëm ci saison blanche ndax saison bii ñu nekk danañ ko prolongé déet loolee it lu ñuy xoolaat la lu ñuy jàngataat la en am ba des mooy ëllëg combat Modou Dia ak caat bu yoof moom it puus nañu ko ba ëllëg diggante armée ak fëgale bi ñëpp doon xaar puus nañu ko ba ëllëg bu loola jàllee it am na yeneen combat yu neex yu fi jaaroon lu ci mel ni aboy fils de zallo papa boy jine ak bébé bismi naan di ak daam seen yépp puus nañu ko ba ëllëg bu dee combat royal ba diggante Modou Lo ak nag lépp luy démarche moom covid 19 puus na ko ba ëllëg men lam Ama Baldé jota mos avance Modou waaye coronavirus oblige bile situation nag moo tax Diène Kairé moom it raté opération gannaaw ba mu jógee ci match nil digganteem ak Queens ñëpp a ngi ko doon xaar ngir mu ñëw wonewaat boppam ñëpp a ngi ko doon xaar ba xam fan la Diène Kairé di fële kañ lay wonewaat boppam waaye ba léegi dara boobee ba léegi jotul avance ngir mën a relancer waat boppam bu dee Boys Hill espoir yi écurie Falaye Baldé moom it mu ngay lim ay adversaire am ña ko làmb boole ne ñoo ko teree neex kan ak kan boole ko ci lim bi wala Nokia ñëw ma defal ko affaire woon ko sama bopp même papa booy jine sax bu ñëwee ma mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci ëttu yéenekaay bi ñu leen jox di daje ba ëllëg incha allah jox di